bismillahi arrahmani arrahim bismillahi alamin mbir li nu fi indi te bàyyi nu fi di ñaan yàlla ramadan bi génn yàlla na lakkaale lépp loo xam ne bi ab safaan la ci ñun te mu bàyyi ñun jikko joo xam ne dañ koy wéyewaat ba déwén dañ koo baaxoo di ko def ngir di fàttalente fàttalente bi mooy àdduna day dox dañ nekk ci àdduna war a xam liy dox ci àdduna war a xam len lu nekk nuñ koy moytoo ak lu ñu war a defit nuñ koy defee àdduna moom fitna rekk la baaxoo ak coono wante nag du tee ña doon baax ñi ngi baax ba léegi rek yàlla ñu yàlla boole ca ñooña adduna bi day mel ne day gën a bon jamono ju dikk gën a bon ju jëkk ja ndax at yi yépp ñu ngi leen di fàttali tollukaayu adduna bi ak fi diine ji toll xam ne boo waroon àdduna ba mu daj do fi gis ben ben ben dekk bo xamne mi ngi àttewoo da fay am lu mu jàpp rek muy ay intérêt mu tudde ko l'islam diko atté wo way l'islam kenn àttewowu ko loolu nak dana delu ci mbolo yi waye dana delu nak ci ñu mag ñi nga xamne ño yoré doole yi te yoré baat yi te waxtu nekk nak Arabie Saoudite la cité ndax dekk bobu nga xamne fa la makka nek madinatu du fa yonent bi teud fa saxaaba yu baax yi nekk fa lislaam wàcce woon foofee dëkk boobu ñoo waroon a joxe exemple ci àdduna bi ba ñëpp roy leen te ba fa yàlla defee loolu ba noppi nag jox na leen kattan jox na leen xam-xam jox na leen doole jox na leen man-man bu tax nu war a àtte woon waaye nanguwuñu ko moo taxit yàlla fu mu toll yàlla fu mu toll bi ci guddi rek junni junni misil sànni nañ ko junni junni misil lañ sandi ci biir ci biir rew bi ci guddig bi rek juróom ñett fukki nit lañ ci ray ak juróom ñett juróom juróom ñett junni juróom ñett téméré nit yo xam dañ leena a té julli seen jàkka ñu fekk leen fa ñu def khiyamul layli ñu songu leen fa ray leen tasaar leen toj seeni kër julli yépp ñe ciel di sétan té julli yi di milliard ak genn mat nañ ko ci aduna bi daana li àdduna yépp ñoo ko yore kon nag ñàkk a nangul yàlla moo tax yàlla seetaan lii te waxuma la de Arabie Saoudite Makka Pakistan Turquie Égypte ñeenti réew yi képp laa wax bu ñu mànkoo woon bu ñu mànkoo woon laa wax kon lee ñuy def Israël lee lee dégg Égypte Philistine kon ko mën a def waaye kenn ku nekk yaa ngi toog sa ruq faale wul islaam lislaam aw tur la rek tey ñu ngi nii àdduna bépp at jullit yëpp am am gàcce tey ñëpp ñëpp rus ñëpp rus parce que juróom-ñeenti million Amérique ñett téeméeri million jullit yi nekk milliard ak genn wàll ñu dëkk leen toroxal te mënuñ caa génn war nañoo xalaat seen bopp bu baax war nañoo xalaat seen bopp bu baax xam ne lii de fa muy mujj ak ñoom du baax te cai cai gii de Israël ñing koy def waye fi ñu ag nak Trump mi fi bayiko ko moo ko fa jamono bamuy bamuy waté ci wate gi la leen waxoon ne ñaan leen Trump bu mu yek bañ ñaanut ba yek def caay caay go xamni kenn mësu gis ci alamu islam yi may leen ñaan leen mu wàcc moo tax toroxal na ko nako na ko ci ben mandat te lolu amerique ñaari ñaari ñaari president ñoko fi def kon mo leen ñaarel Biden Joe Biden moo fa nekk tey waxagul lu leer ndax mbir mii dafa waroon dafa waroon a dafa waroon a taxaw ndax conseil sécurité wax nañ ci ñu baree bari wax nañ ci waaye lépp nañ bu nekkoon Amérique lee Israël def dana dakk waaye nee na moom day seetaan day seetaan nag ñaar ñuy xeex kenn di nga puudale ka ci des ngay damay seetaan loolu ak sot lay tekki waye no ngi ñaan Biden Joe Biden su fekke ne mbir mi daf ci laal dara nek ci suuf di dimbalé yéefar yoyu la dalon Trump lu ko raw yal na ko dal ndax gis nañu ne mi ngi tambul di lawal ak goor jigen di ci force rew yi ba sur rew mi senegal ñu ko fi jema duggal dugal ba ñi ngi def ay tappale def na man nañoo fexé ba ko waye du jallu muko jarul jëm jëru son ak ngóor jigéen du law ci Sénégal mukk ci àdduna ba ba àdduna tukki booy boo ñu bàyyi ci xel baax a baax kon lislaam ji de foofu la toll néew doole rek te néew doole ñoo ko teg seen bopp yàlla jox na leen kàttan jox na leen lépp li ci war kon lu ci lu ci des ci ñun la dese waaye du ci du ci yàlla pétrole beeg lépp ñoo ko yore waaye tey Amérique moo leen gaw moo leen moom moo leen yilif Amérique lañ gën a wóolu seen bokk jullit kon

yàgg nañu ñoom moom ñoom sax jiite woon nañ ko Sénégal gi jiite woon nañ ko conférence islamique kenn déggu leen dara xewut waaye nag war naa yëkkati kàddoom ndax ba mu xew bam ba mu xewee ca France ci Charlie Hebdo de fii la jóge woon nag dem ba mu demee naan nun nu xaw nu mu koy waxee ci tubaab kamana dem nag naan ci Charlie Hebdo ci ci w ñoo ñi nga xam ne ay saay-saay képp lañ bu ñu defee lii lu toll nii l'islam te nga jiite quatre-vingt-quinze musulman ci ay jullit war ngaa yëkkati sa kàddu bañ dégg la kon donc ko ciy waxtaan wi nag du du gudd ci juróomi tomb rek laa koy def bu njëkk bi mooy sëriñ seen bopp war na noo wax ci seen biir ndax nu it nag ci lañ bokk am nañ ci droit waaye takk der yi nga xam ne ñooy police yi war nañoo wax ci seen biir ndax am nañ ci droit nag ndax nun noo leen fi ngir ñu sàmmonu waaye docteur yi nga xam ne ñoo nekk ci hôpital yi war nañu wax seen mbir ndax nag ñu dañ leen fee teg ngir ñu tàmbali suñu wér gi yaram journaliste yi itam war nañu wax ci ñoom ndax ñoo ñu wax di jot li xabaar te xabaar yi dafa nekk war a nekk xabaar yu dëggu politiciens yi nag moom ñoo waroon a jël lépp moom mu jeex parce que nag ñoom ñoo yore suñu mbir te it yoon yi ñuy jaar kenn xamu sëriñ si diine tumuranke na diine jaaxle na diine xamatul fu muy jëm te diine de lebalu leen lii kenn ku ci nekk de diine teral na la teraanga joo xam mënoo ko am fu muy ji diine nga waroon a wàññeeku teraanga jooju nga delloo ko diine kenn delloowu diine dara kenn diine delloowu diine dara Sénégal gii bu ñu fi nekkee quatre-vingt-quinze pour cent diine mënut a am benn baat benn taxawaay bu mënu ko am ba waxumal dara waaye gis mën a gis weer woor woor maa woo woori sax julli yi mënuñ ko te dara tegu leen ko lu may ñàkk a mànkoo ba mën a am baat tey jii bu fekkoon ne dañoo mànkoo woon ba am baat dañ leen tëralal loi boo xam ne bii loi boobu ci la sukkandiku ba bu buñ neetee weer yi feeñ na ñu ne weer yi feeñ na buñ nee weer waaye di xëccoo yow amoo baat cim réew kenn tegu la fenn joxuñ la benn esthétique amul loo doon jéemoo ko kaas jéemoo dara noy def ba l'islam am doole lu may ngay jéem a xëccoo aw weer bañ naan ñet ñetti président lañ ko def ñokoy jité jiite sëñ bi ñi ñak bop ñetti président ñooy jiite séntu weer yi weer yi ñepp ko mën a tu ñepp ami bët amu fi commission ak dara ñepp ami bët juma ju nekk da ngay séntu weer yi bu fay ñu xam ko am na lu nekk ci biir lu waxu waxut gu bari gi nga gis nak bu len defee yalla du yalla juyoo gi du yalla de kenn ku nek da nga bëgg siiw rek amna lo bëgg amal ta xam nga ne ci juyo gi nga lañ lay xamé ba xam yaay kan nga mëna taxawal li ngay taxawal dong do ni dof wër feñ nak wër feñu daal señ buñ ci di xulo amna lu nek ci mbir mu lool nak señ si ñoo may dindi yalla sagal na leen jox na leen baat nañu nañu nañu wañ loxol gouvernement bi bu fekke ne am mënu ñu am loi tam ñu defal leen bo conseil supérieur islamique bo xamni moy mooy loi yi conseil supérieur islamique boo xam ne mooy tiim loi yi bu assemblée bi wateetee ba noppi loi boobu balaa jàll dañ ko yót kilifa yi diine yi ba ñu walidee ko bu ñu ko wal diwut du jàll loi yi loolu lu yomb la seen loi yi ñuy tëral ñoo ko tëralal seen bopp rek du dara te lii ngeen yore yàlla leen ko jox kon sëriñ si nañ dellu siwaat seen bopp xam ne yàlla teral na leen association islamique yéeg gars yi ngay gis ñu yëngutu yépp kenn ku nekk da am intérêt booy xeex rek waaye du yàllay kese bu doon yàllay kese benn bis mën nañu koy régler ko liñ bëgg ci réew mi dana am te kenn mënut a tee mu am wante nag bu fekkee nii la ñuy bu fekkee nii la ñuy doxee wallaay gars yi nga xam ne day beneen culture lañ yore yore ko réew mii dañ yàgg wat suñ kaw di ñu nappaajin bi leen neexee te duñ ci man dara kon nañ dellu siwaat seen bopp ndax na kat mag ñi def nañ li waroon def de ba ñëwee mu jafe xool nañ lañ waroon a xool stratégie yi ñu waroon a jël nañ ko ba taxawal nañ li ñuy taxawal ba soppi nañ àdduna ba teg ko seen loxo waaw nun nag mag ñi dañuy liggéey sëñ Tuubaa de lim def ba dëkkam bii mel nii mburu dañu ko ca tàll ba lépp ñëw mu teg ko suñu loxo ay doomam ñëw fii mu dox baag si ba ci ba ci ñi fi des nii ñi fi des ana luñ def ana luñ def dañuy toog rek ne barkeb sëñ Tuubaa bi nit ko nuyu su ko mu mer boo toogee ju boo toogee ca kaw nga toog suuf nga mer boo ko waxee nga ne duma sa morom waaye yooyu yëpp amul solo li amoon solo mooy ñu def ñu def tajdiid suriyatan tayyibatan tujaddidu nahjan nabiyal Mustafa tajtahidu loolu lañ leen di doyee waaye lii nga xam ne moom la ñuy wane nii kenn ku nekk di wane ne maa ma ma ma ma ma maa gën sa morom maa ngi lii maa ngi laa te taj jëf amul nit ñi du ñuy dof ñu ngi xool di xam ku dox ñi xam nañ ko ku doxut xam nañ ko lii Sëñ taxaa def daal laa xam mbir bu dikkee baag say loxo la nga yéene war a def daal di cay nekk ndax lee muy def de bu fekkee yàlla dimbale na ko ci Sëñ Tuubaa far ko ci murit yi far ko ci ba mu àgg dana bari lu ñu doon naxaat loo xam dana dañ waaye nag ndax ñi ngi koy jàppale ndax ñu ngi koy jàppale te loolu mat naa xool te nag noo ngi xippi suñuy bët di xool yàlla lañ yàlla lañ gëm yónente mooy suñu yónente Sëñ Tuubaa mooy suñu wasila ku jaar ci yoon yi ñu xam ko ku fi jaarul ñu xam ko koo xam ne kii da ngaa jàpp ne barket sëñ Tuubaa bii nag lekk ak naan dang la ak sol say mbubb ak say def def say kër yu rafet wut say oto bu fekkee dangaa jàpp ne loolu dong la yow de li wér te wóor wooy bérété woo sëñ Tuubaa di la boole ci suryatante suryatante yi batantu jadidu loolu mu bal fi nak ni la war tetiawon ni la bal njaasan ni la bal Laayeen ni la walaabale Kawlax ña fa nek mané nañ taxawa tak seen diggi la len seen bàyyi ak seen mami yi won ñu eh, amélioré ko bu baax ñom itam ba mëna taxawal lo xamni li lii depok seen jamono te li depok suñu jamono moy loy taxawal dem ba assemblée ñu ñu ñu waté ko ay loi nga jaar ci kaw loi sukkandiko ci ba def li nga bëgg def waye waxi kese du sotal mbiri kon fofu rek la ci yam Takdir, boy yi boy boy boy boy boy bëgg gis nit ku rew ak nit ku xamati ak nit ku mënta joxe cër ak nit ko xam dañ koy magal ta du magal kenn nit ko xam dañ koy wormal ta du wormal kenn nit ko xam dañ koy moy ta du moytu kenn ngir sa salaire buñ koy fay par wèr bo bëgg gis ku mel noonu gisal ab police mbaa gis ab gendarmerie parce que liñ gis ta diko xol moy gis nañ ne ñi ci ëpp ci ñom am na ñi ci ëpp ñoom du ñëpp nag ndax am na ci ñu ma ci xam ñi ci ëpp ci ñoom saabu buñ jàkkaarloog nit nuñ koy toroxale rek moo nekk seen xel te lii may wax kat ñëpp ko xam saabu buñ yow même amal dëgg ñàkkal dëgg buñ jàkkaarloog yow maanaam ci seen kanam yi rek ci lañ lay tàmbalee di la terroriser yow di la boo leen gisee ni lay def dong kanam yaag ni ñuy waxee yow képp ñi nga xam ne kii ab terroriste la koo ci dugg ci bureau boo fay jógee sëñ bi dangay ngay say tànk day laxasoo te yoo xam ne yi kenn xamul lan la lii xew bëkki démb ci tubaak gii xaw ma président bi nga koy dégg xaw ma ministère de la force armée ministère de ñu ngi koy dégg lii xew ci Touba gii bu delloo xeweti jàppale na lu lu ngeen jàpp ne doo am rek dana am kilifa gu nekk ci këram di ko jub ñépp xam ak jubam ak mbaaxam doon doon doon kilifa ci dëkk bii sëriñ bi nga ne danga am koy seet amook teeylu dem fekk ko këram dajji këram fekk ko ci biir néeg ba dóor ko yeew ko génn ko ci bit yi def ko lu bon loo xam yóbbu ko ca commissaire ba dem bàgg ne ko damaa juum loolu loolu loolu loolu loolu <laughs> loolu doy na waar su fekkoon ne loolu dafa doon lu bees loo xam ne lu lu bees la ñu ne dañoo juum waaye yéen fii ci couvre-feu bi gis ngeen nit kuñ fekk ci biir jàkkaam génne ko dóor ko ba xaañ gis ngeen kilifa koo xam ne kii daa génn ci këram bëgg a jëm ci jàkka ji ñu dogale ko yan yanu ko dugal ci biir oto bi di yóbbu gis ngeen fii nit ñoo xam ne bii dañ leen di fab sànni ci biir oto yi di leen dëgg te di leen maase di leen def yu bon yoo xam ne kenn xamul lan gis ngeen fii kilifa guñ nga jàpp mu leen wax ak ñoom ñu naan ko sa kilifa gu mag sax bu ñu ko jàppoon nii lañ koy def xam nga li ñi ñu bon ñu ñoo bon taxamat yi waaye ñi leen di jox ñi leen di jox baat yi nag ñooma ndax nit ki bala nga koo jox baat mu yor sécurité am réew day xam réew ma te nga xam kooku mooy kan ndax sa da gis nga saa bu ñu la waxee ne sa jaam ba moom lañ fal moom lañ fal chef euh, moom moom lañ fal chef de canton booy boo yenu say bagage xam ne bu xëyee yow lay njëkk a toroxal daf cee bari ñoo xam ne bii nag ay mekkontaan lañ mekkontaan lañ bu ñu leen defee ay ma wala ñu def leen ay ay ay li ñuy def mooy kilifa gu baax ñu gis mécontent gi mu leen puus bopp buñ luñ ko mën a def ci ak toroxal ak ak doyeetal danañ ko def te lii xam nañ li ma wax kon xool ñi indi fii ak niñ leen di tànnee. nañ xool ni ñeen di fi leen tànni mas am fii koo xam ne sama oto laa yebal ay jigéen a ci nekk ak ay gone ak dund bu jëm ci daara bi mu demee ba fii ci panel ku ñuy wax jàlloo jàpp ko bi ma ko jotee dama ko ne waa jàll loo jàppee woto bi mu ne ma woto bi dafa am problème ma ne ko ah waaw man maa ngi ko jënd kër yëpp mat na mu ne ma dafa am problème ma ne ko comme dafa am problème léegi téyel euh, téyel carte grise bi ak ak ak ak yim aju yëpp comme dafa guddi nii te mi ngi taw te ay dongaa ci nekk ak ay jigéen baa ñu yóbbu mu mu lànk ne ma ba ma ko waxee ba dafa ma ne man doo solo sëriñ ah ko waaw yow lu ci dugal dugal ak sëriñ xanaa santu mbàkke wee tax waaye man dama laa wax ne bàyyi leen yóbbu ñu ñu yóbbu ca daara ja wàcce bagage yi ak gone jigéen ndax da mi ngi taw te daa guddi noonu la lànke ma woo pré représentant ki représenté si si si si si si si si si si si bi mu dik wax ko mu lang nga xamne maire bala mu mu abal ma auto mu ñew dindi bagage yi même biñ ne bagage nañ ko wàcce duggal ko ci biir kos bi sax dafa lang te mi ngi taw ak jigen way devenu na mérite na ñu di ñu diko jox ak benn ndomba tank manam ku ñaké nonu yermane même bu bu mu dul sëriñam duma ma amit mais ay goné dong mu jant so muy taw mu yor ab dundu kër gi mu ko yobbu nekk ni te japp nga woto bi lolu lolu may len gis ngeen ko ni de jikko yu soufey yi lañ yor waaye nag sant naa ci yàlla ndax ba mu ko waxee ba noppi ñi muy liggéeyloo da ca am ko Baay Faal la mu dee ma ne ma sëriñ bi bàyyi fi waa ji te seeti kilifaam ba ma seetee kilifa ga ba ma ba ma demee lu ma waa ji defoon ci caay-caay rek kilifa ga defal na ma teraanga junni toll muy Assane Ndiaye la tudd defe na ci ngeengi neew lu ma defoon ci caay-caay moom waa ji rek kilifa ga defal na ma teraanga junni toll ma ne ko ak ñu mel nii lañu war di jox baat kon takk der yi xoraat leen seen bopp xam ne am na adresse bu ñu leen wax bu bon boo xam ne xamu yéen a ngi koy dégg biir dañuy wax ne policier du bàyyi dóor ma ne ko daa xam ne ki muy dóor du fayu rek police du bàyyi dóor ki muy dóor daa xam du fayu rek waaye ponkal boo xam ne moo la man fop nga di ko jàpp di ko dóor mu dela seetaan nga defee ne ak njàmbaar la xam nga ne du njàmbaar da nga am tax dalaa séddu cër ngir der bi mu la jox ak baat bi mu la jox yow yaa ko seddu cër moo tax nga di ko dóor waaye xam nga ne bu doon yaa ngi moom ci mbedd wóor na doo ko dóor loolu dafa mat a xam am na ñoo xam ne der gi daf leen a mandi daf leen a màndi bu ko takkee maanaam ñoom ñu mandi ñoom dañuy defee daal ay yàlla yu ndaw lañ walaay du ñu yàlla yu ndaw nañ xaar rek tey de kilifa yi ñuy fontoo de mboolem koo ci xam ne kii dem nga ba am ak problème doon fay salaire de ci kilifa yi ngay dawaat dellu si làqu seen gannaaw gi ñu dimbali kon na ci président wax lu garaaw la de loo xam ne tuuti ci yem docteur yi ma clinique yi bari na de clinique yi bari na lool lool lool lool ku moom clinique yi yéen docteur yi yéen ko moom dañ leen a fay ngir ngeen liggéeyal nit ñi ngeen wàññee ko berse di clinique di fayu nit ñi loo xam ne mënuñ koo am boo demee ci boo demee ci ci ci ci hôpital ba ñu jox la rendez boo xam ne bi boo xaa boo xaaree bi dee nga dem ci clinique ba booy xaar rendez bi di dee te ñoom ñoo fa ne daan lay joxoñ seen clinique rek boo demee fay analyse yaa ngi bëgg rey nit ñi rajo yaa ngi bëgg rey nit ñi yëf yaa bala bala bala balañ laa faj dañ li li nga amoon dañ koy jël ba mu jeex tàkk ba dootoo am loo fajoo ñu door a jublu sa mbir bu ko defee dee rek ngay dem soo munta soo munta soo munta jote ci ñoom nga dem fekk leen seeni clinique fay leen loolu góor gouvernement bi war wax nag nit ñaa ngi bëgg a dee amatuñ fañ fañ fajoo amatuñ luñ fajoo amatuñ ku leen faj

Euh, maam Thierno maam Thierno maam Thierno Dieng mi nga xam ne mooy directeur yi ma ne ah naa woo ma euh, directeur bi waaye ndax comme maa ngi fii ci biir daal man fay naa ba pare naa ko woo mais gis nga ba ma ko wooyee ba jot ko ne ko maam Thierno ànd foo nekk mu ne ma ne kan ngay euh, xaw ma bis ma ne ko waaw ah, man dama bëggoon a maa ngi hôpital sax waaye xam nga lu ma ci teg ba waxee ba doom ne ko waaw ah, kañ lay a gis mu ne ma pet mu ne <laughs> xam ne ginnaaw man lay wax lii naka nag ak ku néew doole koo xam ne ki yow mënoo dugg foofu boo demee yow noo def doo dee peut-être yow ñu teg la fi ngir nga war a dimbale doomu aadama yi ngi si sa bureau ku ne ci biir hôpital bëgg la gis xamoo lu mu lay doyee ah nga naan ko peut-être may leen gis ngeen ko nii ku ngeen ci yaakaar ba defee ne yéen la fi nekkal nekkul leen seen bopp leen nekkal kon nañu xoolaat yëf yi xam ne yoon wi ñu jaar baaxut wii du jëme senegal kanam da koy delloo gannaaw rek journaliste yi xoolaat leen seen bopp waay jaxase gi bari na lool tappale yi bari na lool xabaar yi wéeru yi bari na lool in jaakum fasiqun bi naba'in fatabayyanu an tusibu xawman bi jahalatin fa bi ala ma faaltum naadimin yow xabaar buñ la jox yéen yi lañu sukkandikoo defe ne yéen ngi wax dëgg xabaar buñ la jox boo ko toppee ba ci biir xabaar ba du doon dëgg ab intérêt ca nekk boo xam ne bii moom ngay daw ci biir ba tax nga jaxase doomu aadama yi ba ñëpp nekk ci ne nekk ci nekk ci fitna te yaa leen ko teg yow journaliste kon journaliste nañ xoolaat li ñuy wax xabaar yi ñuy joxe kat boo ko toppee ba ci biir da ngay dem ba yàgg nga xam ne ñii kat mérétoo wuñ métier mu tedd mii mérétoo wuñ ko de parce que wax ji moom li ci ëpp boo ko toppee ñu néew la ci wax dëgg ñu ci bari seen intere la ñuy wax nëbbu ko ci biir nag bala nga koo xam dugg ba ci biir kon journaliste nañ xoolaat seen bopp xoolaat doxin wi xolaat ni ñu joxe xabar yi tey di wax dëgg te yàlla tax parce que ñoom bu bu njàqee rek àdduna tukki ndax li ñuy wax nit ñi dañ koy gëm te buñ ko gëmee dañ ci sukkandiku te buñ ci sukkandiku dem ba ci biir dara du ci doon dëgg kon dañu xoolaat seen bopp xol ni joxe xalaat xabar yi ñi nekk ci internet bi dañ xoolaat seen bopp nit wax yi waxam ma noppi nga seet ndiggante sa la ca neex nga ne ko kettet daal di koy publier yàqal ko addunaam te fekk li nga wax dara du ci dëgg tegoo mbir ma loolu man daa xool nag

mooy politiciens yi soo bëggee gis ab workat boo bëggee gis workat képp laa wor ak wor bi ngeen xam nit moom mën naa mucc ci ay nax waaye munta mucc ci ay wor xam nga wor moom kenn mënu cee mucc wor moom koo wóolu rek boo gisee workat xoolal politiciens yi yéen ñi ngeen ci xamoon xool leen leen déglu leen kenn ku nekk ba nga ko xamee lam daan wax ak li mu wax démb ak li muy wax tey caay mbëgg jëm yu sokk ku bi jaw kooku bu la waxee ne li muy wax li may wax baax na nga gëm ko da laa neex rek politique yi yéen ngi bëgg a yàq Sénégal jikko yi ngeen di wane gone yi di ci teg bët suñ leen ci royee ba mu sotti Sénégal gépp a nit koo xam ne kii doo wax li ngay def doo def li ngay wax wax aw fen ak wax wax aw fen ak dara nga yemale day nek ci bir mbolo wax fa fen wo xamni ne bu subaa balaa ngoon nga wat ko ci menen mbolo do baye xel ña nga waxaloon ci suba loolu ku man loolu bu la say royé bo gi ci rew sax da nga jam problème kon politiciens xolal xoolaat leen seen doxin doxin wi ñaaw na lool ta bon tay da ngeen defé nit ñi dañu amul xel am na ñuy xel dañ ci mënu dara waaye nit ki mom boko waxé mu dañ nga waxat ko mu dañ nga waxat ko mu dañ boko bu ne waawit dafa am kër sa way xamné day dañ gouvernement bi tàmbali ji Macky Sall Moustapha Niass doyen di siis sëñ Bassirou Gueye ñett yi di am ngeen ay responsabilité yu ci réew mi ndax àgg nañ ci fi mu ne politiciens yi yàq nañ politique ba ba xam ne lépp lu xewati lu ne yéen ñett lañ koy jiñ yéen war ngeen cee setal seen bopp nag ba nga xam ne dañ xam ne li ñuy wax du dëgg ndax kat li fi ba ki lagi kat ciow la gi ne bay waye kenn ku nek amna noko xalaté ku nek nak xam nga xam nga jëla ci deug sa yon dajay nek wala sa yon man ca nek rek waye ñepp xam deug gi gono yu neew sa xam nañ deug gi li nak limi jur baxut limi jur baxut limi jur moy da ngeen di ag ci nak lepp lu ngeen yëkkatee di nit ñi contre ka degi du ngeen ci man dara da ngeen dem ba wax deug sax deug gi bu ngeen ko waxe nit ñi wéddi ko ngeen ko man dara da ngeen ko ma régler parce que ko ji kon assemblée bi ragal leen yàlla loi buñ fi teural mu jall de yéen ko jallale waye da ngeen ko waxat ci kanam yalla de da ngeen ko waxat ci kanam yalla de loi bo xam de yak diine li wax de yak ngor bo xam de yak jom nga ne mu woor la nañ ñi xam ni li baxut bëgg ab salaire tax nga waté ko bam jall ñu jaarale ko ci kaw dooma aadama yi wallahi da nga taxaw ci kaw kanam yalla wa kulluhum ati yawmal qiyamati farda bu nga da nga xam lu ko jaru te yene a loi yi te yende di bu ngeen juboon te maandu te def seen liggey loi bala nga ko bala nga ko wate dana nekk loi bu leer nañ ni bo xam du lor kenn bu lako ko gouvernement wateloo bañal bu lako opposition wateloo bañal su ngeen ko watee ba nopi joxe exécutif bi nga xane moy moy Macky Sall ko nguram te yene len di contrôler te wóor len di bu ñadde ngeen tegg len ci yoon bu wawa ñom duñ mëna wacc yoon wi loi yene koy teural jox ko jox ko jox ko ci bi justice bi di àtte ngeen di ko contrôler su fekkee ne loi yi jaar na yoon ngeen contrôler justice mu jaar yoon kon su boobaa dara du xew kon lu xew yéen assemblée yéen a yéen yi nga xam yéen tëgg loi yi te loi yi te yàlla tëgg ne loi ba noppi ngeen lànk ne loi yàlla bi du fi jàll tëgg seeni loi teg ko ci kaw nit leen def leen neex xalifa nit ñi xamuñ ci xam nañ ci dara lañ leen di jural nag mooy wan leen gannaaw rek kon xoolaat leen seen bopp te xam ne doxin yu baaxut nit ñëpp ko xam nag ku wax ak ku waxut doo ñëpp xam li xew tappale yoo mën a def lu mu lu mu jan jan jan jan jan ni nga ko xamee rek la ko nit ñi xame dañ cee mënu dara waaye bis dana ñëw nag ñu wan la ne xam nañ li nga doon def bàyyi leen xel ci lii opposant bi mere président bu mu leen tax a jàdd ci yoon woo xam du yoon président ak nit la kuñ rek waaye nit ñee leen fal nag yéen itam nit ñi ngeen bëgg a jot su président bi jaaree yoon fa lay alhamdu bu jaarul yoon itam yéen na ngeen fexe ba jaar ci yoon waaye am réew kenn du ko taal président de la république noo lay sargal ci bis bi ndax yaa jiti rew mi dila xamal nag senegal sonn nañ senegal sonn nañ yi ñëw jaarati yi ñi ngi deggmal nawet bi nit ñi amuñu jiwu nit ñi amuñu engrais nit ñi amuñu matériel nit ñu amuñu dundu su fekkee da nga def social lu baax la de waaye ren ji lañ ko gën a aajo kon dimbaleel nit ñi yërëmal nit ñi te jàppale leen boo ko defee yàlla dana yërëm yàlla dana dimbale te jàppale la irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama noo ngi nuyu réew mi yëpp di seen si Muntaxa yàlla na ko yàlla yàgg réew mi ni bu amee jàmm mooma ma bëgg nag ñu bàyyiwaat ku xel bu baax a baax bu amee jàmm day mooma waaw jàmm am day bu du woon ak moom ne tey réew bi tas na kon nag bu du woon moom rew bi tas na tey defe ku doon umpale kuy seigne muntaha umpale dara jam umpale tollu wayam defena ne li jall war na la mom ki moy kan te mo kilifa yi diine yi mbok rew mepp lako bokal ñepp ko nangul nu it nangul nan ko yalla nako fi yalla yagal nogi nogi nogi nuyu mbolom nogi nuyu te di ñaanal yalla mu yàgg fi te wér taxaway bi rafet na lool li sentu won ci mom lépp gis nañ ko sant nan ko bu baax gëreem nan ko yalla nako yalla gëreem te te te te te dimbale ko ci barké seigne touba bokki taalibe yi gu nañ góor góorluwaat nag nan góorgóorluwaat nag am nañ kilifa gu ko mate nañ fexe ba mat doon taalibe bu ko mat wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.